ça va. yaa ngi ci jàmm. ci lu ngeen ne. ñu ne dañoo ñëw sax ñu ne ñu yaa ngi sa néegu yaay. xam nga sama néegu yaay moom kilim bee tax te kon taaw mooy ndey bu fi sama yaay nekkul damay ñëw fii di noos. toog yaa noo def. yaa ngi am jàmm. naka sa turandoo. biyaam mag yaa ngi koy dégg. moom mi ngi Paris ba léegi. Ah, euh, mag ji. <laughs> Kumba. soo gisee ñu def déplacement ak derangement mhm. ñëw seet si la du dara nag lu dul ay waxu Seynabou moo ñu fi indi. Seynabou waaw lu mu def. deful dara sax. Mhm. waaye nag mag ji. Mhm. umpule woon bu Seynabou xale la. tollu ci digg ndawam. war a dox ndawam. xàppi bëggee féexal xolam. ñu gis ni daal danga ko koo bëgg a xañ. waaw. taxaw ci ay xefa mayoo ko liberté ñu ne pourquoi pas nag ñun du ñëw jàkkaarloog yow waxanteeg yow. dëgg la. Seynabou far sax nangu koo am. Hmm. pour lan nga koy yónni guddeeg bëccëg ba talul boppam. Hmm. dox naa dox dox ba ndiri ndaraasam ne ndereet. ah. daanaka bu doon nit moom demoon table la ay tànkam a ngi ci tali bi. waaw. ñu ne nag loolu duñ ko mm. seetaan ndax ñooy ay xarit la mm. ñun ñii ñooy ñëw waxanteeg yow dëgg nag xamal la ne lii ngay def tegoo ko ci yoon rafet na Kumba waaw lay géey kontaan naa ci yow dëgg du neex sama mm. xarit bi wax la ba pare dëgg la parce que Kumba lu mu wax dëgg la dëgg la parce que vraiment Seynabou dañoo gis ni amul liberté. Mm. te da nga ko war a bàyyi ak conscience am tranquille. lay sar ba mu mel ni ñun. Mm. ndax c'est normal moom copain parce que xale bu jigéen da cee toll. Mm-hmm. waaw te gis nañu yow mii di magam. Mm-hmm. da ngay dem boîte ndax ñun ñii ay xaritam. Mm-hmm. am nañ copain. da ngay bëggoon nga bàyyi ko moom ak conscience am. parce que du xale mag bu jëmb la. wallaay dëgg la. ok comme ni nga ko waxee maa ngi dem boîte di ànd ak samay copines di dem fu ma neex. wa yon la bu mbay ma libéré ko usman deg dëgg way tay la deg dëgg nanguna ané ma ko daan ngén te du ngén mbay de waaye ci kaw bàyyi Seynabou bu, dama bëgguna a waxtaanaale ak yeen bala ma koo bàyyi kumba ci yow laay am go sax 20 ans nga nek mbàpp ni pour laan wa kumba loo sañ seni ba bàyyi kumba say xef ni mi rey ku mënoo faaree nii nii <laughs> sa rosa sa rosa beewal na xale waa kumba foo gisati gëre faas bu rose couleur été la rek été duggagul des na ay mois ci kanam été des na ay mois ci kanam kumba rose bonbon nga ne dangaa woote fësën fàttali ma dem si yalla sa Abdou may manam takkal Sadio Ndiaye gayne kumba xale nga do gawa a wa kumba li nga sañse nii xol nga ko gisoko kumba gisoko bala nga ñom kumba nga ne wote boyfriend <laughs> ma ñak sama nday bu la américain jappé do kumba américain xamul caaxaan de dèjà yow yaangi melni mel pour ngulu saabu kumba melni ni mentolaa tey fukk ma sama yaay daan yoni ndaw nga tuuti nga amo xorom kumba nit day gu xam lim beug kumba may joy lol na ma nga def sa bula ci souf ñuus ka ca nag nga xam couleur doom xale day civilisé xale day beug bopam xam li beug xale yi dañoo ba kumba seen kër amul setu bala nga gën do xol sa kanam gu niin gi lila la biyaa yow moom santal sa turandoo ndax bu du woon ak moom yaa doon dugg mongol de maa nga lii laaloon nga mongol ba pare te li nga teg nii xale bu tegee nii yaay yaay kay di ko wàcc ba fii sa jëb yi nga mel ni ku mbëkk bente ñi ku la keyoon xanaa sa wujj yaay la et eh, yow loo ñuus ci sa bakkan bi nii baba demal seeti moo di bisutéri ca Pikine mu may la cercle or xale day teel a tàmm or tam na beneen conseil bu mu leen bëggoon a jox bii kàggu naa jarul lu dul 1000 francs dee leen sangu xesaw ngeen ku ci silibam di xeeñ sopp ma lii dee leen soccu yow deel muyee sa gémmiñ gi sa tuñ yi ndax nga am sàmm tuuti te booy waxati del xool li ngay dégager yaa looy lekk sa gémmiñ gi xeeñ na te man kumba li ma sa forme nga ne dangaa laal boyfriend ma kumba tey laa leen tëj néeg ba mu mel ni tëgg moom loolu tey di tëj ci néeg bi ba mu mel ni mburaake mali te du ngeen ci ñam. jàmm rek muy jël sa gémmiñ say landeer bu mooy jugal yow kumba génnal topp ci yow bi suma rusul woon sa turandoo danaa ko wax noo judd jógal merci xale yi ndax juddoo góoyam di plan yi tëddantee tëddante ba yàq seen àddina doomee ram yi ngeen doon ay ca dootoo leen Habib lan moo tax nga gis sama appel ñett ba ñent te doo répondre. <laughs> mais nelaw ak wuyu ça fait deux. Hmm? dama dama naan ay garabu nelaw dégguma sa appel sonné benn yoon. non mais dama ni wuyu téléphone ak nelaw ça fait deux. dégguma dama naan ay garabu nelaw. te et puis

saa yi nu fa demee noonu ba wekki na gëj si gaal bi. wekki na wekki junior ko gaale bi. ah ok ci gaale bi. gis nga fii la ma mag ji woo ma ñëw mu dugal ma ci néegam tëj ko génneel ma paaka boo xamante ni nii la toll. wala <laughs> lu ma def rek def naa ko lu ko gën a pur. yow loolu si yow si gaale bi te yëguma ko. <laughs> gis nga kooku ma leen indiloon nee leen la xamuma ko tey xamuma ko suba xamuma ko ginnaaw suba ci mbedd bi laa ko fore iri ko mu ñëw seen kër yëngal seen waa kër yépp mooy loolu. yor ni <laughs> kooku xamuma ko ci grand place yi laa ko eh, man bàyyi naa def nit bandi nag booy da leen di def bandi ñu ñëw ne dañuy teg seen dil. yow yow paa yow paa bi ñaan nga ko paa bi xam ñaa la ko fay. Ah. ten taw. déedéet <laughs> paa bi gaaw naa kontaan de. ci grand place la ko fekk paa bi ndellu bu bi ndellu si gàlle bi ten taw nga ko jox. booy ñëw accident. non non sama doom dama kër sama xaanju. mooy paa bi ñëw si gàll yow lu mu doon doon xam. <laughs> <laughs> pes rose doo jéem lijjanti ñu am dara lu ñu taal fii voilà voilà yaa ngi doogay wax boy tey sama gaale pour sama gaale nii nii tey kenn du fi suusee duma leen sax fen sama gaale tey du ko sama mère mu ngi ci gaale bi mais leer laa leen moo tax loolu sama mère mu ci gaale bi wala déggoo ma tey kenn du fi suusee Rose bàyyi yooyu yow nga ni sa yaay lu la neex neex na ko tamit sama yaay lu ko neex neex na ko ba maam ba duma ko respecté man damaa réew rek waaye dofuma de ba pare séparer noir mu ngi ci gàll bi te xam nga ni moom moom mooy loolu. séparer noir bi séparer noir. waaye gàll bi kan laa fi xaw a bàyyi xel kan laa fi xaw a ragal ragal. dafay baax. booy bi kay mooy lu bay day lekkaate du épargne kenn yamaa <laughs> naa dof tey ñu fi suusee de du leer laa lekk. ah mais nañ yegg kaw terrasse am dara la de. xanaa loolu kaw terrasse moom naa si. mais dañuy cool dañuy am dara am bi moom day du fii. waaw nañ dem ci kaw am dara sax am dara la.